waaw fii tëj nañ ko bandi gañe na ko foofu sa place ba ba yi taxee Thank you. arbitre sifflé na ndeysaan finalo yàlla le 26 décembre 2023 fii si Simon Diène dëkkub Jean Marie Ngom doomu ndeyu Amath Ba borom Nioro Alassane Tall jeunesse Simon Diène ndeysaan ñoo organisé lii le Gorée Lamine TV ndeysaan doomu ndeyu Saliou Faye doomu Kobongoy séeréer waaw waaw bandi 40 ans moo xees doomu ndeyu Lidio global business service doomu kawoon bi Gira Sall maa ngi lay ziar ndeysaan jigéen ju mën góor jigéenu Sitor Sène borom jokkul waaye ndeysaan maa ngi ziar ndeysaan Moussa Thiaré Bel Bandi Foye Mbodj Seri ak sa Foye ziare naa la Jackson Ndiaye Seri Thiat Baye Birame Debane nuyul ma yungar maa ngi koy ko kontaane waaye bu leen fàttali le 13 janvier 2023 2024 di sa mbuur laal yoon moo woote borom biir arène TV mission un million cinq cent ñaari drapeau animation yaa nday faatu ak Babou Sène waaw waaw uju Ndayane waaye le 28 ak le 29 la ñuy dem Ndayane am na 750 000 poids léger 250 000 poids lourd 500 waaye suba le 27 ak le 28 ndeysaan fi nga xam ni moo di Foxoy am na mbapat quatre bëf poids léger benn nag la poids lourd ñetti nag waaye le 29 décoration kan ñu ne ordinateur sa ñaaxar bisu 15 bëf waaw waaw ñoo dee ko eh woyale na ko laa ilaaha illallaah koy boot bandi da lay bañ na eh bandi ak ki nga xam ne ndeysaan jaxabal na ko daan na ko Buju the Nabani Karata.